Ziguinchor buñ ko xaymaa am na lu toll ci ñetti fukk ak juróom-ñetti gox yu ko wër ànd ak lii mu population bu takku lool ne Néma 2 doon mennum quartier gannaaw biñ ko sànci ci atum 1957 ci xolum Sikicoor bu ñu lotisewul askan wa fay yeewoon nag fas yéene ñu banki seeni loxo benn yoon ci biir situation ñoom yi de la ñuy sàkku mooy ab lotissement ndax anam bi ñuy dund métti na lool ñàkkum kaarange lëndëm mbënn mi moom la ñuy jànkonteel saa su ne te sax nee nañu dafa doy situation bi euh, kenn wutu ko c'est trop compliqué pour un jeune qui se réveille dans un quartier là où nous avons toutes les difficultés du monde maanaam bu si njëkk moom mooy Néma 2 xat na xat na trop ci lan ci dëkkuwaay bi day indi ay problème day indi ay querelle entre les familles deuxième bi moom mooy lépp loo xamante ni cadre de vie la lépp loo xamante ni cadre de vie la si suñu quartier bi maanaam ñun gisuñu si suñu bopp ñun dañuy génn dañuy voyager bu ñuy rombulee d'autres raison dañuy gis seen cadre de vie parfois da ngay gis ay espace public bien aménagé mais ñun suñu quartier mënuñu ko am parce que lan la ñu ngi jooy loo xamante ni depuis boobu ba léegi mënuñu ko am moom mooy le lotissement duma délégué de quartier duma chef de quartier mais je suis un habitant de Néma 2 di casser les problèmes de Néma 2 parce que man fii la dëkk lu gis ngeen suñu yoon yi ni ñu le quartier n'est pas loti le quartier la a depuis les premiers habitants de Néma 2 ñi njëkk a dëkk fii 1957 la ñu dëkk fii depuis booba ba tey Néma amul tali lotissé wuñu ko vous avez vu même ren la ñu defar ces mini forages parce que fii dañu musa am problème ndox donc nous on avait tous les problèmes du monde fii ay ONG ñoo ñuy dimbal même ci problème ndox de l'eau potable on avait de sérieux problèmes ici te c'est un vieux quartier tous les quartiers ñi ñi wër Némadé Némadé ji moo leen jur yooyu su dañu lotissé ñun fii man loolu laa xool ak sama doom yi un jour ñu jóg ne mais ça c'est quoi ça quartier bi depuis 1957 on est au milieu de la ville de Ziguinchor fii ñun ñu ngi ci digg bi léegi mais rien n'est fait parce que fii politiciens dañuy ñëw di ñu nax te fii population bi dafa bari suñu bureau de vote bi moo ci bureau de vote yu gën a màgg Ziguinchor ci la bokk mais on ne on ne bénéficie ñun quartier bi bi mu am man ci laa juddu 57 ba tey suñu doom yi juddu ci màggee ci ñoom tamit ñu ngi am ay doom politicien bu nekk jaar na fii du ñu nax mais ci lañ ne mais nawet bi doy na ñun mënuñu dee ñu bàyyi ni suñu doom yi ci ay problème ci la ñuy jóg man ak sama doom yi sama doom yi laa wax woo ma sama morom parce que fii pour nga yëkkati ñooñu c'est tout à fait un problème fii kilifa yi fii ku nekk day ne je m'en fous bee daal yow yaa ciy dugal sel bi yow yow yaay def lii parce que ñun su bopp xamuñu suñu intérêt mënuñu dëkk ni quartier noonu loti ñun suñu kër yi kenn amul kayit bu wala man loolu laa xool ak sama doom yi fii suñu siège la fu ñu toog nii fii maa ñoom ñoo ko def siège mu ngi ne fale Coba Tour depuis booba betey tey ma amul dara amul dara man ci la jóg ñu préparé dem ñu def dooman ci préfet bi mu accordé ñu pour ñu def marche c'était le 8 novembre 2019 Néma 2 daa jóg les vieux suñu yaay suñu papa yi jeunesse bi ñëpp ñu dox dem ba mairie boobu mooy première fois ne ma doy jóg def marche ñu dem à la mairie pour réclamer ce qui nous revient de droit moom mooy lan on ne demande pas le maximum on demande que le minimum que nos routes soient bien faites que ñu mën a am ndox ñu mën a am même bu fekkee du case de santé mais ñu am poste de santé au-delà de tout cela ñu mën am école nos enfants suñu xale yi suñu rakk yi ñëpp dañuy génn quartier bi dem jàngi y a sécurité ki est là deux côtés yëpp tali moo ñu wër le 54 tali moo ñu wër côté bi tali moo ñu wër kon xale yi bu ñuy jàngi dañuy jéggi cas d'accident yi aussi c'est énorme tout ça c'est dû à cette cadre de vie qu'on qu'on réclame la lu jëm ci loolu moom mooy électrification on a du mal à avoir de l'électricité même si on voit des branchements qui ne sont pas tout à fait légaux gis nañu ay branchements yoo xam ne dëgg la jaarul yoon parce que day am baisse de tension baisse de tension bu amee lépp loo xamante ne électro matériel électro électronique yi la bu dee tele la wala frigo la mën na lakk déjà conséquences yooyu yëpp nu ngi koy dund. mënoo nekk tamit ak ay nit ay nit nekkul ñoom di sont pas au courant ils sont tous au courant tel que Balde ñëw na fii toog nañu ak moom doxantu na koñ bi gis na kon kooku nekkul ni xam nga yëggul xam na mais fàttewul tamit mais c'est parce que seen yoon nekk si ñun. et puis tamit comme Pape ni mu ko waxee ñun tamit ñoo bëggul suñu bopp nee ma wax ne ma tamit dafa mel ni bëgguñu seen bopp parce que bu ñu ne kaay la ñu ñu dem yëggal autorités yi. comme ni ñu nekkee ni rafetu te bëgguñu ko mais doo gis kenn da ngay fëgg seen i buntu ba sonn doo gis c'est comme si ñoom situation bu ñu nekkee ni c'est il croit que c'est normal alors que c'est pas normal xeex nañ wax nañ lu ne mais rien bon yaa fii de y a cela un an pratiquement neuf dix mois comme ça autorité ak paa ñu ngi waxtaan lu jëm ci lotissement bi ñu ngi gëmmal ne affaire bi mu ngi mu ngi mu ngi avancé ñu ne mu ngi avancé ba jox nañu kii bi nu mu tudd sax. Euh, plan bi yëpp bon ñu ne ñu li nga xam ne moo freiné un peu avancement ak kii bi mooy suñu laalee population bi fu ñu leen di yóbbu espace bi nga xam ne fa la ñuy yóbbu moo amul dans la région de Ziguinchor moo raar loolu mooy ñu ne loolu moo nekkoon facteur bloquant maintenant ba tey gisuñu lii tax am ba ñu gàpp jàpp ne lii de dina mën dina mus am ba tey gisuñu loolu lii tax ba jàpp ne lii dina mus am rien rien rien léegi avant nawet bi di ñëw ñu waxoon nañ avant livernage te nawet bi ñu ni on est au mois d'août ba tey rien mais ñu ngi leen di déglu daal mais mooy li nga xam ne dafa ne ma de loolu la gën a soxla amul lan luñ gën a soxla lu lotissement fu mu dool ne askanu ne ma de ngi sàkku yi tamit ay infrastructure ku socio de base l'hôpital ak yi ni mel rawatina assainissement bu baax dañuy sonn ñun on survit même nos morts même nos morts sans cette difficulté-là dans ce quartier même les morts pourquoi je le dis tey bu amee cas de décès pour nga génnee ko dem si tali bi rek c'est tout un problème. l'année passée un bien décédé ici pour oto bi romb fii il fallait que ñu yóbbu corps bi il fallait pour ñu mun koy yóbbu mais j'ai vu que cette situation-là que ça doit être millionnaire bi ñu nekk tey ñun au vingt et unième siècle et que loolu dafa war a nekk. da ngay am malade pour nga. pour nga am oto problème la da ngay dox ba ci kaw tali bi gis nga tali bi nekkee nii tamit c'est à 500 kilo 500 mètres bu nekkee ne la tamit c'est à 600 cent mètres un malade bi nara a dox loolu ba ci kaw tali bi pour am oto xam nga loolu tamit du c'est pas c'est pas sérieux baaxul bu nekkee tamit cas de décès tamit mort da nga ko fi am bon ñëpp xam dañuy xam ne diw moo dee moom la ñuy yóbbu nii ci morgue bi parce que dañ koy mujjee yen pour am oto oto yi dañu mën a dugg ci yeneen côté côté da ngay yenn sa mort. xam nga yóbbu ko ba am oto dugal ko yóbbu ko ci morgue ba et puis loolu tam pas loolu du dund. benn kilifa bu jóg parce que chacun mu ngi xala est du ñu laal mais bu ñu la laalee ils vont te dédommager oui et ils vont réaliser un terrain pour amener ceux qui sont impactés est-ce que population bi xam nga ñu ngi nii ba tey depuis cinquante sept on n'est pas loti parce qu'il pas. amul volonté mooy population ñoo amul volonté ñu soose ñu ne uude boo demee ci ma boo ko de aw na la awlu sa téere ni ko waxee noonu lay awlu sa téere fii parce que ñu borom kër yi loolu la amuñu volonté donc eh, eh, état bi nu mu lay gisee noonu la lay xoolee depuis kañ ma ne depuis cinquante sept bi ma defee marche ñu ne ñoom UGC en voie pour ñu def marche mu ñoom accès ma ne la mais c'est faux man musuma ji fii man mun naa la laa judd fii laa màggee musuma gis loolu moo tax gars yi di ma ja di bugg a man kenn du ma minimiser parce que man ragal ma nit man kenn rek laa ragal mooy yàlla. fii rek ngeen gis mais comme on a fait le tour du quartier gis ngeen yeneen parti koñ bi pratiquement fépp nii la mel voilà et puis. Euh... depuis comme pa ni mu ko war waxee fii léegi depuis deux mille dix neuf commencé nañ euh, di def ay marche di yëgal autorités yi peut-être xëy na fàttewuñu mais plein pour di leen rappeler comme que situation bu Némba de nekkee nii depuis des années rafetul on est au vingt-et-unième siècle nga nekk ci quartier bi nga xam ne mu ngi digg digg digg digg Ziguinchor tey jii ne boo demee ginnaaw Némba 2 tu trouves là-bas des quartiers bien lotis voilà ouest nord sud foo demee da ngay fekk quartier nga xam ne sont bien lotis mais ne ma da muñ ci digg quartier yooyu noonu ba tey mënoo fexe ba gis benn euh, réalisation lu jëm ci loti lotissement bi nga xam ne mun na mun na mun na tax sax nga jàpp ne voilà lii c'est des choses bi nga xam ne mi ngi ñëw am fi ñu mujjee def réunion c'est chez le ñu pare de plan bi génn lépp génn desul dara léegi pour ñu xotti yoon yi ba tey mais mardi bale passé dañuy def réunion à la mairie man dewuma mairie pour réunion boobu parce que boobu tamit dañu fa fekk benn projet boo xam ne ñun yëguñu ko ñu les populations de Némade te moom le chef de quartier yëgoon na ko mais n'a pas parce que ONU Habitat nous a envoyé seize mille cent trente neuf dollars boo ko évaluer ça di du huit millions soixante mille et quelques bi ñu aman bi may dem foofu ci réunion man dew boon pour réunion boobu parce que man dama dem man dama dewoon pour beneen cas mooy fii suñu suñu benn parcelle mu ngi fii gars yi dañ ko jaay te on a éliminé des routes a cause de parce que Néma 2 dafa dafa dafa fees on a éliminé les DG des jeunes On a éliminé une école primaire. Le terrain est là, ils ont vendu ça. Mais on s'est dit comment loolu nu mu mën a nekkee ñu on a dit les populations ne ma di fii dafa xat espace boobu ñun lu ñu ko prévoir ba nekk les jeunes lu ñu ko prévoir mooy ñu def fa dispensaire ak maternité aujourd'hui on voit ñi ñi fay muule ay briques te loolu ça nous étonne mais lu ñu waaj a lu ñu waaj a def. moi et les jeunes on ne va pas accuser personne ñun du ñu accuser kenn mais suñu amulee lu leer suñu amulee lu leer on va porter plainte contre monsieur X et on prendra le nom de Néma 2 toutes les populations de Néma 2 sont prêtes aujourd'hui pour pour porter plante contre cet monsieur X parce que ça nous appartient terrain mi ñun ñoo ko moom gannaaw digle yu bëri jot na waa Nema 2 mën a moom seen bopp nooyi ndax waaj bi xat na lool te sax ñoom ñi de xamal nañu ne bu ñu mënta am ab lotissement nañ leen defal ab alignement bu baax ngir ñu mën a moom seeni bopp. mais problème bi moom mooy amuñu yoon marché bi lan la woon lu ko sabab sax mooy lan xam nañu lotissement mënul am parce que beaucoup de raisons beaucoup de localités au Sénégal ne sont pas été lotissées normalement donc un alignement un alignement loolu rek la ñuy ñaan depuis boobu ba léegi mënuñu revenir alors que on est patient il y a maintenant quatre ans de cela ñu ngi xaar benn autorité gisuñu ko pour mu ñëw ne serait-ce ñu ñëw toog ak ñun ñu waxtaan bu ñu waxtaanee amaana avancement projet boobu fu mu toll di population bi dina ko xam dina ko xam loolu moo nekkoon suñu objectif en 2019 mais depuis lors on voit pas d' avancement gisuñu avancement ci loo xamante ne moom mooy quartier bi mais l' effet escompté de notre marche en 2019 moom mooy le mini forage que vous voyez là population bu jóguloon amaana les les gens qui sont autour de nu je ne veux pas nommer une ONG qui est à côté de nu moom moo def œuvre bi dans tout le quartier de Néma 2 joxee na cinq mais avant li yàlla a le l'ancien maire qui était là qui avait donné des des des points d'eau ñu ngi koy saluer bu baax des na des na moom mooy lan nos autorités locales yu nekk fii ñu jege suñu ñu ñëw laaj ñu ñu wax ñu point d'avancement wu restructuration quartier bi parce que ñoom loolu la ñu wax évidemment c'est compréhensible si on veut faire un lotissement ñu war a jóg day bari pour na atténuer tous ces dégâts là ñu ne dañuy def restructuration loolu la ñuy xaar ñu ngi leen di déggu jusqu'à présent. da nga gis ni nit day bëgg a tabax aussi tamit bëgg a tabax am xaalisam bëgg a tabax du mën a tabax parce que da ngay tabax état ñu ñëw ñu laal ak loo mën a tabax bu fekkee ne yoon bi jaana sa kër tamit da ngay jóg. voilà loolu da ngay jeter ay des millions comme ça par la fenêtre c'est pas sérieux moo tax nag ñu bëgg balaa loolu yëpp duñ ci fekk. ko oh, ñun ñëpp bëgg nañ dund bëgg nañ dund tamit bëgg nañ am une vie un peu aisée quand mais pour loolu mën a am il faut gars yi ñëw ñu xottal ñu suñu yoon war nañu lii yoon la ñu xam ne néema de ah même bu doon sax parce que lotissement normal bi mënuñ ko amee mais ñu génneel ñu yoon bi nga xam ne daal nit man na fi jaar oto mën na fi jaar en cas de feu nit man na fi jaar en cas de malade oto mën na jaar ba taxaw si buntu këram ñu yóbbu malade bi wala cas de décès malade mën nañ kii man oto mën na ñëw ñu jël mort bi yóbbu ko mais tant que loolu amul tamit maanaam yow sa vie bi sa dund bi sax da ngay laaj au fait est-ce que sax c'est la vie quand même. nu nous souffrons dañu sonn nee ma dee on n'a rien dara nee ma dee dara parce que pour nga am dara fii même pour avoir le courant c'était difficile on est au milieu de la ville ñun pour ñu am courant fii da nga doon able courant nii dégg vous avez vu mini forage C'est des Toubabs qui ont ici. Mais si le quartier était loti, chacun allait avoir son robinet chez lui. On a un problème d'eau ici. Si le, le, le, matin tu trouves ici, tu, tu, vois les femmes là, tu vas te dire, mais comment Parce qu'on on n'a pas de route, on n'a rien à Nema 2. Nema 2, on n'a rien. Le Coran là, les premiers qui ont le Coran, par exemple, ici, c'est un cohabitant qui est là derrière, c'est lui qui, a, qui nous a amené la ligne là. Mais lorsque ici, je n'avais pas de... J'avais vu le panneau solaire. C'est à cause de ça que j'ai eu le panneau solaire chez moi. Mais tu sais bien, avec mes le Dieu bien des choses. man dem naa Sénélec pour jooma courant ñu ne ma noonu fii nga nekk tu es en troisième position. et eh, le gars là lui il est position il est plus fort que moi. Il a eu l'électricité. Mais comme que Dieu fait bien les choses, c'est le Ndiagwa, on lui a amené le Coran, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ah, yalla ñëw na il faut ñu gëm yàlla rek yàlla il faut ñu gëm ko nit waru joxe boppam ni nit parce que moo lay jox lii man du ma nangu loolu bu la neexee ñu leen jox ay millions je m'en fous de ça c'est pas eux qui me nourrit man kenn dundal ma fii yàlla moo may dundal ñoom si il faut le parce que am na lu ñu leen jox pour ñu jokkoo population il faut le malin avec ça man sama yoon nekku ci te du ñu dund ñu ëppale ma nu ñu dundee jamais moo yàq quartier bii quartier bii du ñu wax dëgg amul solidarité mais terrain boobu bi ñuy jaay nii depuis que ma ngi woo wax naa ko ci mosquée kenn faalewu ma Mais l'ex-maire Balté a tout fait pour moi. J'ai marché avec Balté ici pendant trois jours. Si la Balté n'est mon moussoul dougnéma de Balté, fille la moussa de ñoom mu mouillon fekk ñu fii fii Man. Balté m'a ma fii cinq robinets. Assez de dougal d'un fille robinet. Man. Balté m'a ma fii cinq robinets. Balté m'a ma mini forage comme il m'a ci du bi kon condition publique valide ko mooy dans ce quartier. depuis booba léegi nag tooguñu dëgg la mouvement mi fii la juddoo si suufu mango bi la juddoo mais après loolu noonu gis nañu côté yëpp ñu ngi jóg di jóg di dox si loolu am na aujourd'hui ñoo xamante ne ñu ngi rencontré autorités ñun aussi ñu ngi jóg di leen rencontré tout récemment pas bi nekkoon na fa mais c'était pas dans le cadre d'un lotissement ñu ne dañoo woote woon réunion mais ñun ba léegi comme ñu ngi si situation boo xamante ni le pays où la raison est un peu instable moo tax ñun ñu toog tuuti mais bu jógaate parce que bëgguñu boole mouvement bi ak lii dañoo buggoon def set di là mouvement bi mbañ a bokk ak mouvement bu nekk di xew mais autorités yi dina leen jege incha allah ñu wax leen lépp loo xamante ne ñun bëgg nañ ko te ñu ngi jóg seen kaw encore C'était, c'est pas un mouvement violent. On n'est pas violent. Nous avons fait une marche pacifique. incha allahu rabbi marche pacifique boobu noonu la ñuy defaat parce que tous les problèmes du monde ne se règlent pas avec la violence mais ça se règle sur une table